Seex Tijaan ñi bañu tànnee mbay ñooni Maodo Seex Tijaan ne sa gannaaw mbay seenu doy fekk mbay tërër bi Maalik Maodo naa kon te daje naa geesu ba am yar yow lii du la mooy fekk mbay see ko jago démb du ni mbay ñooñu kaw ak ñooñu suuf ak nit ñi am. yaa ma ci doy. si ñooñu kaw ak ñooñu suuf ak nit ñi am. yaa ma ci doy. Jaal Baab Abdi Yaal Mbay si nooroo ngir taxaw. moo ko xeeb mbay xalifa Maodo ëllëg looy def mu ni xawma ko de. wa am am nga maa ko ko nettali ca kaw la seex mi lu doy ku ko am am nga yoneen am Maodo am seex mi lu doy Maodo leen mi jàll bab addi yàll mbay Seydou Nourou ngi taxaw moo ko xam mbay xalifa Maodo ëllëg looy def lay Maodo loo bàyyi Seydou Nourou leen mi jàll laa dem keroog nan ko neen mbay ko jox ki addiya moo aye tey gay seet leen Maodo Malick na mu tolloo ki ka ko yéemaat ba mu jox koy addiya am ka coroñ gay kon jëm mujj cee wax Maodo Malick si nga wóolu as nga wóolu mbay la wóolu boo ko xeebee def nga ay lu doy ku ko am am nga yoneen am Maodo am Cheikh ni lu doy papa yaa di xóot bu yaa di xaw yaa doonu Maodo ki maye papa yaa di xóot bu yaa di xaw yaa doonu Maodo ki maye papa yaa di xóot bu yaa di xaw yaa doonu Maodo yàlla yoon 这个。 mu ne ko yaa di xutbu sëriñ bi ne ndax dégg nañ xutbu bi. waaw moom la sëriñ bi ubbee. <laughs> moom la ubbee. waaw moom la ubbee sax macha allah. moom mooy mooy li mu ubbee sax. xutbul mu jaral. mu ngoog alors balaa ñuy jox alaaj Jub Kenn Mbaye mm. euh, incha allah mbaa yéen a ngi joxe addiye yi na addiye yi joxe leen addiye Seydina Mohamed euh, ci ki nga xamante ne mooy dut kenn. Mm-hmm. Euh, na ko ñëpp joxe numéro yaa ngi noonu ci mm-hmm. écran bi. Mm-hmm. ngeen mën koo joxe incha allah Baye Doudou. waaw la béyk ñu ñu ñëw ci góor gi moom yi waaw relation Serigne Babacar. moom de xam naa Serigne bi dafa baax rek. wallaay di cër boobu waaye. Mhm. moom yu mu wax yëpp yu bale na géew. Mhm. fi ñu tàmbalee mooy xasida bii ngeen doon teg. Mhm. Baye Mbay Donde mu ngi taalif en la ko taalif. ñëw. nettali ko sa dégg nga mu ne mag ko nettali ca Kawlax waaw mm-hmm. mooy sa kër maam mm-hmm. soxnaa sukkan googu mm-hmm. tabaarakallahu muy kër sëñ Babacar gii li nga doon wax léegi soxna sukkan dëkk fa mu tudde koo Njaasaan waaye Kaolack bee soxna sii Sidi Kunta bu maam bu dëkk ca mu tudde ko Njaasaan Kaolack googu nag la ko fekk nee na ni ko dama mun jéemantu ba ma doon def ci yow nga fekk mu ngi toog ak muqaddam yu bari nee na nettali ko ko nee mu ni bi mu wàccee di dem nee na sëñ Babacar yabal góor gi màmmaloo nee na ni mag ñi mu toogal mbay doon de xasida bi mu fi indi mag ñee ko ko sant ndax fu ma ci jaar ak Seydi Hadji indi na ko ci woy te waxuma ko ko hmm. fenn rek la juume mooy li mu ni Maodo jox ma manto hmm. xam nga dañu lemmi mantoom haddiyal mbay Cerno Seydoo ngi taxaw hmm. uh-huh. mu ni góor gi maamaloo nekk du manto jàllaa bi la te xam nga manto jàllaa bi benn la benn day ndeysaan sëñ Babacar ci respe ak wormal nit bañ a blessé nit sax nee na moo tax mu bàyyi ba may wàcc escalier yi mu yebal góor gi moom ni ko dab ko ni ko doo mënto jàlla bi la ndax bañ ko ko corriger rek ci mbooloo moo tax sa njaboot bul ko corriger ci mbooloo waaw mm-hmm. Mm-hmm. Eh, ca la Baye Mbaye changé nag mhm. ni lemmi jal bab hadiyal mbay mhm. lemmi mantom hadiyal mbay mhm. ak wasnu bi lemmi jal bab hadiyal mbay way du dam du dam dede déedéet <laughs> wa kay loolu mo indi xasida bi kay eh, baba tabarakallah bo seetee bay mbay ay atam 20 quelques années la ndax trente la gane aduna te 54 xam nga ne 24 ans la. Mhm. waaw waaye moom bi may woy sëñ Babacar gisagu ko. Mhm. Hmm? waaw ndax moo ma wax ci lamiñam ni ma. bi ma àndeek samay moroom. Mhm. nekk kër jëmb. nee na am ci suñu moroom yi ku ci jënd paquet si paquetu manola. cigarette. séddale nee na di ma jox nee na ma bañ. ni ko man duma tox te ne na xale bu ndaw laa booba mhm. nee ci guddi gi laa tëdd mhm. gént gi sëñ Babacar Si te booba mës ta jógeegul sax kër jëm booba ay sept la am huit ans mhm. na ci laa tëdd gént gi sëñ Babacar nee mu ni ma boo bëggee doon sama waay bul fooye pool waaw <laughs> moo moom eh, yàlla dogal Mm-hmm. histoire am ak jaar-jaaram ak sëñ Babacar Si radiyallahu taala sa maam Si moo ko xëcc mm-hmm. ndax moom baayam tafsir alxasan bay muqaddamu Seydi Xaaji mm-hmm. ca kër jëmb ca jobaas eh, sam papa daan def na juróom-ñeenti juma ak juróom benn fukki jàkkaak ñeent te ay mbokk yu doonul woon jullit lay tuubal mhm. ku mu ci tuubal jàngal la fatiha ak naasi ak ikhlas mhm. ni la ñeenti saar yi dee ci julli ba gën a miin diine bu ñu baree ko ci bëgg tariqa mu dugal la ci saxaar ñëw ànd ak tafsir gay ca indilin indi leen sëñ Babacar bu ñëwee ni leen man sàmm laa borom jur gaa moo tax mu ni waaye man mësuma koo woy tafsir Hasan mbay mm-hmm. ndax féete sëñ Babacar Si radiyallahu taala 1943 eh, la maam Alsaan génn àdduna mm-hmm. Baye Mbay andak magam gorgi gi Baye Mbay si xam sam papa ñu bari defe nañu sëñ Babacar liñ ko tudde déedéet kër gi Babacar Diouf ca Kisan ku amoon doole la ci yobaas moom la maam Alsaan dugal ci diine duppee ko Baye Mbay magam di magu Baye Njaase moom lañ tuddee woon Baye Mbay si moom lañ tuddee woon sëñ Babacar si mu nga tëdd ca sëg yi ca këram Alaaji Aman Jege moo Baye Njaase bokk ndey ak Baye di maga di seen mag waaye nit yàlla mooy xëcc nit mhm. Baye mbay Sy nag bi mu ñëwee Dakar di fi def commerce ci la yóbbaale sam papa mhm. baba sam papa ans la am mu ñëw fii nag mu joxe ko fu muy jàng tailleur Baye Mbaye tailleur la woon waaye muy fréquenté Alaaji Amad Lamine Diène oh. ci daayira yi ndooy rajo di papa Ibou ndooy benn mhm. di ko takkal ay rajo mu fay animé ba sëñ Mansour ñëw Dakar ñu ni ko am na de man xale bu fi woy inal mënaay la bu neex moo tax sama baay moo nu wax moo ma wax ni ma sama woy ci inal mënaay la la ko yàlla jaarale waaye mbay ma ko wax mhm. sëñ Mansour nee na maa ko bindal inal mënaay la ba maam alaaji Amar Lamine Diène di ñëw Tiwaawan di ziar si sëñ Babacar Si ni Baye mbay dama bëgg nga woyal ma convoi bi ne ma ànd ak ñoom ñëw ba woy convoi bi ba sëñ Babacar toog ma woy ne sëñ Babacar ni ma du yaay doomu tafsir Alxasan Mbay jëmu tungoo moon mm-hmm. ca kër ñaaña sow ci Thiès ngir ma ñaanal ko mu dund mm-hmm. mais ma ni ko waaw ndax Baye Mbaye mooy juróom wu jigéen mooy aawo maam alsaan mm-hmm. waaye dafa bonle mm-hmm. Baye Mbaye ci atam suul na juróom-ñaari doom yu góor nee nañ sax ëpp na ko ku ci mokkal alquran faatu Baye Mbaye ci dund ci góor ñaari jigéen soxna mbay mi mag mooy yaayu leemu ak yu jimmi yaay ma juma ñoo ñoo ci dund ne ma ni ko man la kay ne sëñ Babacar ne ma bul di gëj ci waa doom du sori weenu ndeyam <laughs> bul di gëj ci doom du sori weenu yaayam nee na ba ma ñëw nag di ziar si seet si sëñ Babacar si ñëw te boobu sama bàjjan yaay ndox mu ngi fi waaw bàjjen yaay dox hmm. te seen ñaari baay bokk ndey ak baay ca la ko gën a découvrir nee na ma ba ma taxaw di naan boisson ci butigu mbay xulle hmm. rahimahullah ne sëñ Babacar woolu moo ma ñëw hmm. ne ma ñëw mu ne ma wooyal ma raaya bi ma Cheikh El Hadj Abdoul Aziz mooy raaya bi ma dul ubbee xalifata mm-hmm. cheikh yi mm-hmm. mm-hmm. nee na juróom-ñeenti abiyat laa ci man ne mun ma wooy wooy ko li ci arab mun sóor firi ko muy sëñ Mansour nee juróom-ñeenti abiyat laa ci mokkal nee ñu bind mu bindulu ko jox ma nee na woo ma ñëw mu di ko sax nee sama itam jaraaji ne di wax may wax ne mu jël baaraamam bi rek ko ci sama dënd bi ne ne ma bala bis bi del si na mok ne na door gi mu door ni baaraamam sama dënd bay mbay ne na yek na ni lu ma defal ci la mako defal Mam sing sëñ Babacar Nena senjalin gede Alioune nama imno jàngal na ma Ibnu Achir jàngal ma faakiha ak khilas muni waye waaye romb ben muqaddam de muni ba borom xam-xam muni tay de lamay romb ak otom ba fe taxaw waye ba ma lalee téere sangam te bay bay da dan tok ñun ñepp ñu wër ko ak ay daalibe muy jàngale lolu daf ko dan def waaw sa way jur wu baax wa Cheikh sëñ Abdoul Aziz keroog bi Baye Mbaye génne àdduna dafa ni Alaaji Mbaye doon bokk na ci ñi ma poussé ci gën a def recherche ndax question yi ma daan laaj li ko booleeg sa way jur nag sëñ Babacar Si moo ko woo ni sëñ Mansour dama jàpp bis nga jàpp bis muy benn gàmmu te ñaari waaw yu bokkul du génn ci sama gémmiñ ma bëgg léegi may jàpp Abdou Aziz di bind dat yi mbay doon di ko dékk noppam mu di ko yebal muy dem ndax daja bañ a amati lii moo indi relation bi dox diggante Baye mbay ak sa waajur ci dund sëñ Babacar sëñ Babacar leen boole sëñ Mansour ni xam nga sëñ Mansour kenn mësu koo gis ci biir réew mi muy gàmm. ci dundam ku ko mas a gis amul. Mhm. moo wax ci làmmiñam ma jottalil ko de. Mhm. mu ni bi sëñ kër génne àdduna danoo waxtaan. Mhm. ma ni Serigne Cheikh ak sëñ Abdou dee leen dem. man nag gàmmu um, soxna um ak gàmmu sëñ Abdou. ma toog Tiwaawan. moo tax même gàmmum ci Pikine. sëñ Abdoulaye fa daan yabal mm. mo fa daan tew mo mm. mm. ni motax ken musuma gis may wër bir rew mi di gam motax bo xamul da ngay laaj mm-hmm. mo indi relation bi doxone digentem ak sa wayjur motax Baye mbay da daan wax ci tante ni fuma fanan kuma Abdul laaj ku bëgg xam fuma ma laajal seigne Abdou moy tontu ndax fuma jëm mo mo fay yeba mm-hmm. loolu mooy direeku ba tey rek. ci kër gi. wallaay tabaarakallahu. Mhm. sam nag ci sëñ Babacar Si. moom dafa daan wax ni ñeme naa cee ratt gaynde te du yëngu. Mhm. est-ce waaw. Mhm. daan na wax ni ku bëgg xilaafa jëlal. ku bëgg wilaaye jëlal. ku bëgg cër bu mu doon jëlal waaye xam li neex sëñ Babacar Si man kaw moom neexuma neexaluma ci kenn. Mhm, mhm. lu xew moom laa koy laaj te am nañ ci ay preuve yu bare bare de mhm, waaw luy xew danaan nàngam ak i nàngam mooy xew laaj naa ko sëñ Babacar si mu ni ma nàngam <coughs> te danaan ma ci rawdu bi la ma ko waxee it yàlla xam na ko kon nga xam ni fas fas amul lu mënul looloo waral nag tabaarakallaahu e, moo sëñ Babacar defal ko fatxan mu binan waaw mësul nangu it e, laaj kenn dërëm ci gàmm mësul am e, ñun ñi def nu ko tere amul kenn ku mën ku mën a taxaw ni ku alaaji mbay doon de yilif nee nga ko nee na la jox ma nangam amul kër gi sax duñ doxale noonu. ñoom ñi ñëpp. ñoom Abdoul Aziz ak ñëpp kenn ñemewu ko ci. waaw dangay dem <laughs> ngeen def sa tarbiya loolu mooy li nga xamante ni eh, mooy sa mooy mooy sa rôle. moo tax moom am na bés sa way jur ndeysaan ñëw ni ko Serigne Cheikh nee na nit ñi dañoo gàtt xel. te woykat yi ci àdduna bi ñooy tabaxi école di tabaxi hôpitaux te woy dafa metti waxal alaaji mbay doon na wut prix ba mu ñëwee sëñ Abdou wax ko Baye mbay Baye mbay ni ko ah Serigne Cheikh de defoon naa ni xam na ni am naa prix ba sa wayjur ni ko luy sa prix mu ni ko sëñ Babacar Si mu ni ko ndax sama nee na ma nit déplacé temps te kooko soppe sëñ Babacar la te amu ko xañ naa ko tàggal ko ak tàggal ko ak bégal ko ci sëñ Babacar Seck Seydi xaj Malick kon na bàyyi sëñ Babacar di sama prix rek mhm. te lu ma soxla mu faju <laughs> ah, loolu mooy mooy moo tax mu daan wax ni lii ngeen def ci kër gi mhm. na ngeen ko jàppe tarbiya waaye bu leen ko def jàppee wutukaayu koom mhm. mu ne ndax wa madxul Moustapha fawzun wa xunmun fama xarajun alayya min alxanini mu ni ma wa madxul Moustapha xunmun wa fawzun wooy wi attan na ko waaye fawzun la jiital kon tarbiya ngay jiital lu la ca fekk-fekk la ci dama dem Thiès benn programme Dun Njaay may ma fa Dun Njaay presta may ma fa terrain ma ñëw wan ko kayit gi mun ma yii moo lay moo lay moom ngay moom ngay bégee mm-hmm. yu metti yi mm-hmm. waaw ah na ni daaw ci la ma Adama Faye mayoon oto bi mm-hmm. di ma indi fi ci sa barke ma ah. te waxtaan lu mel ni ci sëñ Babacar Sy taxoon moo tax nga xam ni moom bu ma sànni jóge gàmm yi toog ci gàmm day séddale séddale séddale ba bu ñëwé ci kër gi day lepp lepp day lepp dépense eh loolu daan na ko dund khalifa mbay da ko daan wax suñu mak ah papa li nangam nangam mu ne ko bayyi mak sa turandoo waaw su ko waxé ci yenn organisation yi da ko ah dafa doylu woon bàyyi bay dafa doylu won mm-hmm. waaw Euh, boo ko mu ni ah am na ñu ma nekk ndooloon Tiwaawan te lii ma yàlla defal defalu leen ko amuñu sax fu ñu dëkk may nañ ko terrain yoo xamante ni noonu la naax saay ca Tiwaawan <laughs> man mii bokk naa ci ña ko doon toppatoo ba ma ñëwee xam nga moom Babacar ni ci kayitam beneen sant lañ ca def dindi mbay ji ma ñëw wax ko ko mu ni ma ah loolu jaru maa ngi fii rek am na ñoo xam ne ba nag ni amaguñu fu ñu dugg. seetal boobu doylu. allahu akbar juróom benn terrain. Oh. yu taqaloo. waaye moom dafa doylu woon ci côté boobu. neen mm-hmm. eh, eh, li mu ci am na luñ luñ mënta wax. wax ci mm-hmm. télévision. Mm-hmm. waa dëgg yàlla. waaye itam tabaarakallaahu. Eh, dafa wóolu woon Pape mii muy àndal ndeysaan. dama xool vidéo bi rek sama xol sori. na la daan dundee ñi mu àndal ni waaw moom laay wax ni. Mhm. pab Ndiaga Cissé mi Baye Khalifa Lo dama leen di xool ñoom ñëpp ndeysaan. Mhm. ñu ngi jiitu. Mhm. yal na yàlla dolli seen leer. da ngay xool ñamu mës di àndal. ci dund sëñ Babacar Si tàqalikuwul ak ñoom benn yoon mm-hmm. ma mësul am man sama turandoo moom la daan ànd mm-hmm. moo ci indi kenn ci bàyyi dut kenn mm-hmm. nee na ma damaa ànd ak sa turandoo ñu dem gàmm ba ñëw te xoolal ñoom bañ daan dem gàmm yos nam melew train la ñuy dugg ba gaar bi gën a jige dëkk ba ñu wàcc wuti lu leen jàllale dox dem dina ma am na ci dëkk boo xamante ni welo welo la welo la ñu jël mun ma keroog sa pap daawur mujjul ñëw ndax mënul welo welo <laughs> mën a dem ci dëkk ba. welo nee na ma dem naa ci gàmm boo xam damaa yegg si. président bi ni ma. yàpp yooyu ngi nga romb ñu di ko dagg. diwlin duñ ko toggee amagul. bàyyi may yëkkati xaalisam jox leen ñu jëndi diwlin. te moom la ñuy toggal rek. <laughs> <laughs> wala loolu te bu buñ fa jógaatee même effort yi la ñuy def kar siwaat saxaar hmm. mun ma dañoo ñëw jóge gàmm ñëw di rendre compte sëñ Babacar Si hmm. nee mu sant nu ñaanal nu nee na daal ni yàlla na ngeen dund bopp bi jaaw nii sama bopp bi weexee yëkkati mbaxanaam nee ni dund ba tuddeen tey doom waaw loolu